salaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom. dina xam ne golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu yoon simbu gaynde la. dama lay laaj rek yow xamoon nañu yoon simbu na. ba léegi da koy def. ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noo bëgën baal bët gémmi leneen li ci des ay détails intéressé wu man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama. Ah, dama yaakaar ma bëreeg moom ba bët set ba guddi mu sangu ñëw suma kër man am naa yaakaar ci Baye Mandione Baye Mandione mi daf ma faa. mais tamit sénégalais yu bari dañuy seen combat neexul parce que du am du am du am jéel maanaam wëlbati gang du ci am. parce que la muy bëgg duma ma ko may man la may bëgg moom duma ko may moo tax combat bi day metti nit ñi nañ xalaatee foofu man li ma bëgg man Modou du ma ko may Modou il faut ñuy naxtaan tey ma moom. parce que naxante ba kañ tamit nag. déggoo lu ma la loolu moom mooy possibilité ci moom moom noonu la ko bëggee mais bii bi bii ñëwaat ni ci kàttanu yàlla naxante du am de. Maodo bii di yoon sarax ndongo daara mbaa mu tëb doole. déggoo lu ma la naxante du ci am moom xam na loolu sax. arbitre sa génnaatoon sa diggante ak moolo Modou Lo 2020 wala 2021 xaw ma kañ lay doon Lac dina dox ci kaw Modou Lo agressé ko. lan moo tax nga naan Modou dox sa kaw la dëgër agressé maa foog ni yaa ko war a ëpp doole <laughs> <laughs> foo ko doole c'est pas question de ëpp doole. ñëpp koo gis muy bëre grand combat rek. yaa ngi dégg nga nekk mbër mag am nga doole. dama mësul gis mbër dox ci kaw Lac de man gis naa mbër dox ci kaw Modou Lo. dox ci kaw Modou waaw noonu la est-ce que gis nga mbër bu dox ci kaw Lac de Guiers. waaw kenn ku nekk ak méthode am rek. mais yow fas ngeen dox ci kaw mool. ndaxam fas ba ñu yegg ci. ba ñu yegg ci. après yow bu nga posé waat question Modou nga ne ko ndax est-ce que fas yéene na dox ci kaw Lac de Guiers bés bu suñ combat moom. ñun ñaañu bu ñu dox kenn ku nekk bu doxee ci kaw moroomam kay combat bi na neex. waaw. Ah. Ah. yaa ko dig amateur yi di ko say supporter. li ma la wax. bu taxawee ma taxaw dootul neex yow nga ne ndax am man dinaa dox ci kawam léegi yow da koy laaj ndax am est ce que moom dina dox sama kaw bu doxee sama kaw ma dox ci kawam bu ñu dajee mu neex. léegi moom su doxee sa kaw. ma dox ci kawam. kon da ngeen di daje. waaw bu ñu mu neex. yaa ngi Modou kon jàpp parce que man jàpp naa ne bu arbitre bi dana dox sa kaw léegi yow nee nga ma su arbitre sifflé nga dox ci kawam kon yéen ñaar su ngeen tasewaatee. day neex daje boobu day neex runkum daje boobu noonu mais Modou nante la de du ngaaka de. maa day négocier. <laughs> yow lu leer la la kooku dant la. ah combat bi paas négocier wu ko de. doomu mag la dant de. Ah. du de. ban négocier ban combat la négocier. moo kan boobu. moo ko mëseen négocier wu comme nan. négocier kan mooy leewatoo ah, boobu am juum rek boo songee song bu warul kay da juum ah, noonu mais bu dul Gris du du du nu kan nga jàpp ni sa la. pour la instant bu dul Modou di Gris kan sama adversaire la encore ah man de ñaar ñooñu laa gisagum ñoo nekk sama adversaire. Tapha Tine. Tapha Tine waaw la parce que mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mbëri mag yi mu ngi ci waaw mu ngi ci course bi mbër bu mag la. ana ana cinu fonde bi. cinu fonde ah loolu kay boo ñaaw ay cinam de xom ndax këpp na ba léegi sa cin bi sama rakk ju baax ji sa cin bi fonde bi kii na de dafa mujjee dog de. pour moom nee cin bi fii la ko bëgg a taalaat de parce que dafa fii géej waaye nee na nee na kii moom moo moo lakk kii. bala. kala ci xeelil bala. te moo bàyyi Balla. Hmm. te dem xeelil keneen. Mar Balla ah, man de bu doon maay mu dem xeelil keneen te bàyyi bàyyi Balla yow xeeli nga ma mën a bëgguma ah, ah jël sa fond bi jox force la ba nga naan ko kon ngay na ko jox keneen. Balla la ko bëgg a jox. Ah? a jox. waa na ko dem jox ko xool. lu ko ci mën a fekk. na dem jox ko rek. dina xool ndax am soosa ba dina naan fonde wala naan fonde. Balla du naan fonde. Balla. fonde mooy Balla Babis. Uh-huh. booy ñaa dangeen a bëri. combat bi na mu demee da ngeen ko man yàppoon naa ne booy ñaa arbitre sifflé fu mu nekk na nga fekk dóor ko dóor yi metti daan ko yenu ko ba ci kaw. te ko ci suuf pour waa géej waaye am na ñu bëggoon yëpp moom nag jàpp na ne jé jëlu falaa falaa nga ko daan. moom la jàpp moo tax mu bëgg a bëri jël la moom daan nga ko de. waaw kon ñaata yoon la ci jour boobu. laaj naa la ko. <laughs> man maay tontu. <laughs> nekkoo ci làmb ji. ah man kay tontu taxu maa jóg. Eh, loo combat sama combat booy ñaa paase na nag moo loolu moog moog lag laa moog kii Balla. moog Balla seen diggante waaye yow yow kii daan na pare dina dem seeti leneen. na bàyyi na bàyyi Balla Balla xam nga ne moom est-ce que dina ah xaw ma xaw ma choix Balla ah. mais boo boo xaw la mais su may wax nii man en tant que kii. xam la en tant que sama diggante ak Balla. bon man gis ma ne loolu combat la pour cent mais bu fekkee ne Balla dafa bëgg combat boobu bu ñu ko fayee lu ko jar ah Balla bu ko neexee mën na jël combat boobu am na ci plein droit. mais booy ñaa amul sens ci combat boobu. booy ñaa. ah moom sincèrement parle man gisuma nag fu mu war a mën a jaar ba gisuma ko su ma nee gis naa ko maanaam la carrément gis na mais gisuma ko waxuma ko en tant que ay ma Balla dañoo bokk ay yooyu de mais dama gis fa la war a mën a jaar Balla parce que daaxu ko ko fit daaxu ko xeex. doole ëpp ko doole. nañu dëgg kon léegi donc fan la war a mën a jaar ah bu fekkee Balla bëgg naa bëreeg moom mooy nañ ko fay lu ko jar buñ ko fay lu ko jar Balla bu bëggee bëre bëre. Hmm. boo ñaa bëgg a bëre tam mu bëre. loolu rek. làmb noo gisee. situation làmb. combat VIP ba léegi taxaw. combat VIP ba léegi taxawagul. ah saison bu ubbi na. tijji na la première. tijji na waaw nga ne ma saison bu ubbi na. saison waaw. waaw ma ne nañ dawal ba ci kanam tuuti VIP bi dina am ñu ci bëre. nga yaakaar ni di nga bëre ren. loolu lay ñaan yàlla. man ak yaa giri bëgg naa ko torop torop torop. maa giri. ah waaw mais boo ko bëggee te nit kee bëggu ko kay noo ci mën combat bu neex na combat jànq nga noonu nag. combat jànq waaw ah. yi laa bëgg ñu ñu tëgg ko te bàyyi revanche revanche dafa doy. waaw sincèrement par nañ yaatal quoi nañ yaa bu yaatoo rek affaire yi neex. ana saa. sama gaayen boobu noonu <laughs> mu ngi fi. moom tamit moom dëgër na ci ko dem de. waaw mooy dañ koy ñaanal yàlla rek. affaire yi bi yolamaat mu noyaat mu nekkaat ci voie bu normal. moom ci voie bu normal mais dañuy ñaan yàlla mu gën cee teguwaat. moom ak rëg rëg loo ci wax. moom rëg rëg ba léegi des na rëg rëg des na de. waaw non sincèrement parler mu waxee ci cadre sport rek. beneen combat bu taxawoon waroon na dox ci diggante Ama Baldé ak ak ak ak boog mu dem ba war a taxaw ba dara jox desul lu joxe avance beneen mbër bi reculé muy Ama Balde. moom waaw. selon selon promoteur bi moo wax loolu ñëwal jël avance ñu départ ba mu neex leen ñu génnaat ci combat bi noonu est-ce que loolu tamit loolu noo ko jàngate li Ama Balde reculé am na lu tax mu reculé moom moo xam la moo tax mu reculé xam nga tamit nit di nga dem xool yaa ngi da nga xool ba li dal sa xel pour nga def ko nga def ko peut dafa gisagul lu dal xelam moom moo tax mu reculé. mais bu ñu yaakaar ne dafa bañ a bëri wala dara. am na sax suñuy source ñu dégg ñu ne date bi moo jege moo tax loolu arrangé wu ko. waaw parce que tamit bon bu fekkee ne fekku la nga nekk ci compétition maanaam entraîné wu yenn entraînement il faut nga bëgg date boo xam ne daf lay xaw a sori tuuti waaw mais tamit li tax mu reculer moom moo ko xam man xaw ma. am na loo ma waxoon nag te ba léegi gisuma ko muy soxna si soxna si. Eh, kon xanaa nekkoo ci dëkk bi dëkk ah suma ko yëg. no waxuma takk naa de dama ne xanaa yow nekkul ci dëgg bi. waaw ma ci dëgg bi loo xew. point d'interrogation. mënut a nekk. takk kan ngay takk. nga ne. kan ngay foo nekk ci lan. non ba ci ban monde nga nekk fi mu nii xanaa nekkoo Sénégal. maa ngi Sénégal. xanaa yëgul li am. lu am. yëgoo dara dara dara ci dëgg. laa yëguma dara. waxuma dara de. ah nag yow tamit Lamine nag yow instant bi yaa ngi nelaw de. dara ba ma yëg dara. ah. mosoo ma wax nga jabar. déet Lamine defal ndànk man bu ma jaxasee gaay <laughs> nga naa ma musuma wax am naa jabar soxna kay moom non gars yi fu ne ñu ngi xaar fu mu ne ma wax fu ne nii waaye du ma wax de. di nga wax nag. benn affaire daal. toog leen rek bu fekkee am naa soxna di ngeen xam bu fekkee aw ma soxna di xam. boo amee soxna danañ ko xam takk googu nag. Ah. looy xaar. mais yow xanaa da ngaa déglu ma la wax. na na toog rek xool. bu fekkee am naa dinañ ci xam dara bu fekkee aw ma dinañ ci xam dara. waaw géej waay de war nañ laa forcer moom nga takk. waaw géej waay. Balla moom naa ko mu forcer la moo guy gi Abdou Diouf ak ñoom Elton. Hmm. ñooñu ñoo gis am na. Elton. Elton am na. Elton amul soxna. ah Elton daal nañ ko lënkoo yow furut nga furut la bokk leen ci réew mi. <laughs> waaw sama dernier moo lii la di nuyu sama grand sama xarit Gambien ci États-Unis euh, kooku moom amuñu fayama ah. man aw ma fayam yow Gambien maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla na lay yàlla guddal sa fan yàlla yokkul xewul gu bari ci barke Seydina Mohamed ndax Gambien borom xol bu rafet la ma la dama mooy États-Unis de mais lépp lu ma soxla def ma ciy jàppale kon donc jëmm jooju kenn amul fayam. xam naa ne boo demee États-Unis ba di nga gën a daan. non déggu lu ma la wax. Gambie ak may waajal fi mu ne nii ay bu ma tegee sama tànk États-Unis Gambie waajal ma rek bu ma ñëwaat. kàddu gi lu mu wax. kan kàddu gi di nga ñam kàr gi. salaamaaleykum. man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak ma Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom. dina xam ne golo golo du golo du kañe yow yow xamoon nañu woon simbu gaynde la. dama lay laaj rek yow xamoon nañu woon simbu na. ba léegi da koy ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noo bëgg baal bët gémmi man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama. waaw ah, ba yaakaar ma bëree moom ba bët set ba guddi mu sangu ñëw suma kër man am naa yaakaar ci Baye Mandione Baye Mandione mi daf ma fa